jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen di yoo dal leen ak jàmm ci seeni actualité du jour di xibaar yi gën a fës ci internet bi yile xibaar dañ koy dooree ak la xew foofee ca diwaanu HLM Grand Yoff jëmale ci soxna si di wéy ci turu Nafisatu Jeeju moom nag ñu ngi ko fekk kon mu daal dee ñàkk bakkenam ay atam mu ngi toll ci 37 ans ki nga xamante ne nag moom moo di borom këram ci boppam moo alerte ñii di ak njabootam ak takk der yi wax leen ni nag kon soxnaam si lee di Nafisatu dafa daal dee xaru daal di xam ne ni sax kon ba mu yeewoo ci la def découverte macabre bi waaye bu ñu sukkandikoo journal bi la di les échos yëf yi demeewul noonu ndax moom Ngor Sile kon ci déclaration ba mu def ca kanamu takk derrière denn amu ca cohérence rax si dool yi ñoom sapeur pompier ak takk der yi ba ñu ñëwee ngir def constat bi ak jël si néew bi daal lañu gis ak li nga xamante ni moom la déclaré bokkul ndax am na ay traces violence yoo xamante ni kon gis nañ ko ci néew ndaw sile di Nafisatu Jeeju ba tax na kon borom këram bile daal di koy placer en garde garde à vue moom sax ak yeneen ñaari xaritam yoo xamante ni kon seen loxo daal di ne takkee ca biir mbir mi léegi buñ sukkandikoo ba tey ci journal bi ñoom ñaax ñi leen nag bokk na ci leen jotale woon ab xuloo boo xamante ni kon doxoon na ci seen diggante moom mi di nafisatu ak boroom këram nga xam ne ñu ngi dëkk ci benn appartement bu ñu luwee foofee ca Liberté cinq journal bi nag daal di xam ne ni kon ki nga xamante ne moom mooy boroom kër bi njortu nañ ni daal jamono ji faatu faatu nafisatu googulee loxoom euh, jugeew ca ndax lañu xamle mooy gannaaw bañ doon euh, jàppante ba coow li jukk dafa daal di xoj euh, soxnaam si dee ba mujjee ñàkk bakkenam nag mu tiit xamul nu muy def moom boroom kër gi mu woo ñaari xaritam di leen expliquer nag situation bi ñoom ñooñee ñoo ko xelal ni ko yëfi daal na ko nëpp nëppal ginnaaw ba tayu ko ci noonee nag kenn ci xaritam yi daal di woo ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay waajuru kii di nafisatu seen doom ji li daal daal dinay ñàkk bakkenam ginnaaw kon ba mu daanoo sax ci karo appartement yi daal di glissé ñoom ñoo ñee nekk daar daar la ñëw ca bërëb ya daal di woo itam sapeur pompier yi ñu egsi gis nag li nga xamante ne moom mooy corps bi waaye fi mu ne trace de sang yañ ca gis ak ay euh, trace su violence dalul woon seen xel benn yoon ba tax na nag kon ci lañu jàpp ñaari xaritu boroom kër gi ak boroom kër gi la ci boppam di leen poser ay euh, de question moom mi ne nag di borom kër gu Nafissatou ci la changé version di wax nag waxu suicide gannaaw daanu ba njëkkoon a wax mu mujjee di wax ne nag soxnaam si di nafisatu kon dafa xaru mu la ko fekkee mu ñàkk bakkanam mu nekk ñaari version yoo xamante ne dañoo waroo ba waral nag jamono ji kon ñu ngi en garde à vue enquête bi nag mi ngi wéy ngir leeral ana ci yan anam la soxna si le di Nafissatou Diédhiou daal di ñàkkee bakkanam ñu wax ci leneen ci lay xibaar jëmale ci mbiri kii di euh, Kaliphone Sall ak ndaw sile di Adja Thiaré Diaw nekk mannequin moom lee daal dinañu xam ne ni sax 19 la am moom ndaw sile nag mi ngi accusé kii di euh, Kaliphone ni daf ko violé ba noppi nag daal di koy rek tek ay euh, maltraitance ak i violence dóor ko dóor yu metti ni mu ko partagé ci ay photom fi mu ne nii nag Kaliphone mu mel ni dossier mu ngay gën a rek di corsé muy sukkandikoo ci journal bi lee di libération daal dinay fësal élément yu jëkk ci enquête bi fi mu ne nii nag am na beneen xale bu jigéen boo xamante ni gendarme yi daal dinañ koy déglu comme témoin moom itam nag nee na victime la ci attouchement maanaam làmbaatu yoo xamante ni Kaliphone Sall doon na ko def ba noppi nag li nga xamante ne moom mooy certificat médical bu Adja Thiaré Diaw daal dinañ koy versé ci dossier bi loole nag daal dinay dëggal violence bu méttee métti bi nga xamante ni kon it Khalifa Sall daal di koy def ci euh, kawam journal bi ba tey di xamle ni nag moom day bi ligi di Khalifa ca kanamu enquêteurs yi naka dafa mel ni ku mujjee réer ndax ay contradiction moom la nekkoon euh, di wax moom Khalifa nag lu jëm ci wàllu viol gi daf ko weddi ba mu set tegee ko ne waaye nag nangu na ni kon jot na daal di duma ki nga xamante ni moom mooy Adja Thiaré jaw maanaam yëkkati na loxoom teg ko ci euh, kawam ba noppi nag di xamle ni kon légitime défense la Kaliphone Sall nag ak Adja Thiaré Diaw seeni mbir mi ngi woy ba tey muy enquête bi nga xamante ni kon euh, moo jëm ci li ko ndaw si lee di euh, toppee fi mu ne nii nag journal bi di xam ne ni kon ab confrontation war nañ ko amal ci seen diggante ñoom ñaar muy jàmmarloo goo xamante ni kon yoon war na koo amal ngir leeral lan moo xew ci seen diggante ñoom ñaar ñi kii di Amina Sale ak ex jëkkëram ji lee di nag moom Amina Saleh daal dina ci defaat ay publication yoo xamante ni mu ngi ciy wax ak exam bile moom mi nag dafa porté woon plainte boroom këram bile ci fàttali di wax ni nag yëf yi kon mi ngi ci kanamu yoon waaye fi mu ne nii àdduna yëpp dinañ xam kon kan mooy boroom këram bile itam nag accusation yi nga xamante ni yëpp jël na ko teg ko ci ab deram dina setal deram ba mu set wecci ci ab compte Snapchat am nag moom mi di Amina Saleh mi ngi ci xam ne ni nag di ko wax ni yow Serigne na Fallou Mbacké Abi dama bëgg nga arrêté ak say harcèlement ak say woote yu dul jeex waxatuma la ak nit ñi ngay yónni ngir nag maag yow ñu naa de toog régler yëf yi daal di def comme dara mësta xew sama juróom-ñaari xel xalaatul sax may delluwaat ak yow man ak yow bis bu ñu waree jàkkaarloo ci kanamu yoon lay doon naan ko nag li nga sombi di nga ko naan nekkul nag dama décroché wul say appel moo tax nga war a xalaat nii dama la ragal tuuti nga torop itam nag nit yi ngay yónni ngir ñu may piéger ngir mën ak yow ñu mën a gisante jàppal ni yaa ngi perte sa temps ndax loolee xalaatuma ko bu ñu waree daje nag fenn rek lay doon te mooy ci kanamu tribunaux yi moom mi di Amina Sale lool la daal di xàmme si compte Snapchat am. ñu woy ba tey ci les xibaar waxtaanee la xew foofee ca diwaanu Rufisque rawatina quartier bi leen di Daaru Rahman foofu la nag mbirum maltraitance jëmale ci ab sëriñ akub taalibe moo fay lëmbe Kébé jamono ji moom taalibe bi nag di wuyu ci turu CN mu juróom benni at képp la am la ñu xam ne nag mooy dañu ko torturé ba noppi séquestré ko di ko mettital ci diiru juróomi fan li ko waral nag mooy dafa rëccoon kii di ustaasam moom taalibe bi nag gannaaw ay fan ba ñu koy wër ba mujjee koo gis ca la ñibbisi ca daara ja ci noonee nag sëriñu daaraam bile ca la décidé ni kon daf koy punir ndax li mu def ci la ko yóbbu ci ab néeg di ko dóor dóor dóor yu metti nag ba noppi kon daal di ko fay tëj euh, juróomi fan euh, bàyyiwu ko lu dul euh, samedi ga la fa génn ba noppi nag ne ko kon nga dem ca mbedd ma daal di yarwaan yi waaye nag moom taalibe bi léegi nga xamante ne juróom at képp la jël am ginnaaw nag tëj ba ko ustaasam boobee tëj li nga xamante ne moom mooy aw yaramam foo xool ay góom la ak i mettit mujjee sax nag ba kon li nga xamante ne moom mooy góom yi daal di mujjee infecté wu ba mu génnee nag moom bile dafa daal di nag rëccaat kenn moom moo ko mujjee jàpp taalibe bi nag jooy daal koy nettali li nga xamante ni moom la dund ca daaraam noonee nguur si ko daal di for nag yóbbu ko commissariat bañ ubbi ca ab l'enquête moom taalibe bi nag la mu xamal takk der yi mooy dafa am ay jafe-jafe bu baax a baax ci mokkal jàngum alxuraan mi loolee waral nag ustaasam bilee lu méttee métti moom la koy teg te loolee nag moo tax mu rëcc daal di daw ndax dafa tiitoon moom oustaz bi lee nag gannaaw ba ñu ko tegee loxo ay naataangoom nag journal bi di xam ne ni kon ñu ngay jéem a nëpp nëppal euh, yëf yi waaye polis moom jamono ji mu ngi wéyal ab enquête am mbokk internet yi fi la ñu yem ak yéen tey ci seen i actualité du jour jox leen di daje ëllëg ak jàmm ci yeneen i xibaar jaa ngeen jëf